kawteef euh, kii li nga xam ne mooy dayongo gars yi bu fekkente ni opéré wuñ ko du mën a ñëwaat à cent pour cent ci li nga xam ne loolu la doon football ca boobu équipe loolee nag nekk information boo xam ne du neex benn catalan wala képp koo xam ne yaa ngi bëgg kii di euh, Frenkie de Jong ndax blessé ba mu blessé ba tey di ko sooxaale mënuta nekk cent pour cent fekk opéré wuñ ko Kylian Mbappé mu yanu lii lee di poto ba loolee as yëglekaay moo ko ci def as nag xam naa ni gars yi pérection bi ñu teg Mbappé diis na trop maa ngi leen di siyaar di leen bégg sàkku ci yéen abonnement yi ginnaaw yëgle bi ñu coppati seen mbégte gars yi topp leen ma ay baraj baraj jéeg téll téll ji mën naa bari waaye doole yëmul ci mim réew ah, ci li nga xam ne mooy liggéey bu sell te mucc ayib gars yi maa ngi ci tayba tayba yi nga xam ne képp koo xam ne ah, bëgg nga sab tabax ci commencement fondement ba yëkkati say caabi ah, ni la ko jabb ba pare di kenke ñi ak yow ci mbégte mi ngay ànd ak sa njaboot dugg ci sa biir kër kenkaayri bi loolu lañ ko tax a jóg ndax liggéey bu mucc ayib bi ko ñëpp xamee gars yi maa ngi ci làmp yi nga xam ni mucc na ayib lamp yi yow mi yor sa immeuble sa terrasse wala lépp loo xam ne yor nga ko ci ab tabax commencement laa lay wax ba foo man di dem ci tabax ji immobilier bu la neexee buddil basan suñu lamp yaakaar naa ni conteneur yan ca wàccee car masha Allah bari na njëgg yëpp na bitim réew la jóge liggéey ba mucc na ayib beneen bi ci des mooy Moussa ak ñi mu àndal ak i rakkam ngeen gis karo yi nga xam ni yaakaar naa ni dëkk bi karo bu yomb moom boo ko weex ci nun nga ko mën a amee ciment bu yomb naka noonu fer ciment ba ci béton suuf lépp loo bëgg ci quincaillerie générale am na ci suñu place waaye nag gars yi peinture originale bi ko bi mi ngi ci suñu loxo maanaam lépp loo xam ne jëm na ci peinture kaw ba ci maanaam peinture xeet bu man di doon maanaam salatex ba ci li nga xam ne daanaka andiwil andiwil maanaam boole seen bi yëpp rek bu ngeen ñëwee euh, fële ca Taïba Taïba yi ci marché central nga xam ne euh, daanaka di ngeen fa fekk lépp wala ngeen woote ci suñu numéro téléphone bu ko defee ñu jokkoo ak ndaw yoo xam ne ñu ngi sikkumu di jaamu seen i soxla di ay taalibe yoo xam ne yaakaar naa ni jaamu soxlay askan wi rek moo leen tax a jóg place baa ngoogu beneen bi ci des nag ma dugg ci léegi muy mbirum maanaam li nga xam ne mooy plombier yi lépp loo xam ne jëm na ay siège anglais ay saas sangukaay yoo xam ne mooy dernière génération yi mag a mag yoo xam ni lépp taw feex ci image yi ngeen di gis nii baneen bi ci des mooy peinture bi waxoon naa ko waaye daf maa ñor peinture bu originalité fii ngeen ko mën a am ci Taïba Taïba Office moom Taïba Taïba yi ñoo leen di may revue de presse bi ci Aladji Malick TV alimentation générale Kën Bëgg Bamba euh, numéro 2 mi ngi toj li nga xam ne mooy dixième ak li ko wër ànd ceeg ki nga xam ni mooy le jeune député le tout nouveau jeune député euh, moom moomee nga xam ne bagage yu yomb yi moo ko yor tey dafa ne ci promotion maggal gii ñu jom di màggalu xaadim rasul gi nee na ma alaaji Malick fi mu toll nii bagage yi stock bi dama ko yokk yokk cere dollu ñeex te lu mu jaayul baaxul lépp lu ngeen fa jënd yaakaar naa ne am na promotion bu mucc ay boo xam ne ma nga leen di xaar bagage yaa ngoogu daari alimentaire manqué wun dara euh, passé euh, diwlin vingt litres ngeen gis ko ci image yi canette euh, nag daanaka eston ban fa teg ci taabal ji euh, soriwut ak conteneur ngeen gis bagage yi yaakaar naa ni lépp yemb na ci suñu place numéro téléphone yi moom ngeen di gis ci talu vidéo bi bu ko defee lépp mën a def tawféex gars yi am nañ li nga xam ne mooy ndawal gu yomb goo xam ne loo ci bëgg mën nañ la koo peeseel suñuy gérant bokk gérant yi nga xam ne ñoo gën a mucc ayib ci dëkk bi maanaam di la teeroo ni ñuy teeroo buur bu ko defee lépp tawféex nga gis bagage yaa ngoogu ñu wan leen lii nga xam ne mooy numéro téléphone yi mu ngi noonu alimentation kër Bamba numéro 2 ngeen gis ko ànd ceeg Ousmane le tout nouveau jeune député lii di numéro téléphone yëpp a ngoogu bu ko defee bu ngeen wootee mën ngeen a faye wéef mën ngeen faye li nga xam ne mooy KP mën ngeen a faye Orange Money mën ngeen a faye sax lii di ah, Tigo Cash bu mucc ayib di leen xaar équipe baa ngoogu gars yi bu mel nii est-ce que am na ah, ci ñiy liggéeyaloo nit ci biir dëkk bi ndax cawarte ga ma fa gis ak li nga xam ni mooy mën a teeru client kanet ngeen gis ndox mi ay pack ak boisson ah, façon bu ngeen bëgg am na fa ceeb ak diwlin en gros demi gros muy parfumé muy ordinaire muy lépp loo xam ne jëm na ci xeetu yu ngeen mën a dugal ci seen i waañ ci màggalu Tuubaa gi euh, boisson yi nag amul benn boisson boo xam ne stock ban ci ngeen ci dara diwlin 20 litres yi ak yeneen yi nga xam ne sax yu yees peq la yoo xam ne daanaka tudd nu ko ci vidéo bi waaye lépp mboole seen bu ngeen demee ci suñu place euh, fële euh, ca 10 deux voies yi nga xam ne bu ngeen foo wootee wala ngeen dox ak seen bopp lépp dana taw féexa soow na tamit soow yu mucc ay bi gone ak li nga xam ne mooy boisson sachet yi nga xam ne lépp daal daanaka ci mboole seen ma nga suñu place équipe bu mucc ayib di leen fa xaar seen i commande ma nga noonee gars yi ma jéggul mais damay droité laal ndànk Air Sénégal damaa yàkkamte bu leen ma fuwee ci aéroport bi bàyyi leen ma ma gondaan daal dem gars yi yëg naa maa jël première classe wàcc fële nag ca Barcelone dayongu laa gis noonu muy soox di dem sama waa ji taxawal mën goo dem euh, ndax information bi nga xam ne bëgg naa la ko yéggee gars yi bul nangu gaa yi di la utiliser ndànk-ndànk bi nga xam ne yaa ngi koy def di sooxaale tànk bi di dox loolee moytu ko ndax nga xam ne ñoo nekk fële ci réewum Espagne bu ñu sukkandikoo ci information yu bari xam le nañ ni bala moo a cent pour cent wala du mus nekk euh, cent pour cent ci àdduna wala ngal kap fekk nag fekk nag fekk nag moom mii di da yongu wala moom mii di Dayong ma jégalu maanaam euh, demul ñu opéré wa tànk bi ba mu mën a tegu ci temps ak heure loolee lépp nag di information yoo xam ni yu ama am solo la gars yi as yëglekaay li tax ma andi ko nag ci yëglekaay bi te it yaatal ko bu baax a baax mooy as yëglekaay nag ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ne ca Espagne est-ce que sonalul Mbappé gars yi ci commentaire yi ndax pression bi mentalement mën na koo andi li jafe-jafe coûte que coûte gars dañoo bëgg gis le grand euh, Kylian Mbappé moo nekk ci yëglekaay bi ci cat la nag gis ngeen ko ni mu jàppee lii li nga xam ne mooy poto bi lii nag wane maanaam jaaxle ak ñàkk a dugal ci ay camp gi nga xam am na te it gars yi mayuñu ko tustar bëgg moom mii di Kylian Mbappé mu wala mu passe décisif loolee koo xam tey gars yi maas waaye yëglikaay bi ñëw na tamit ci Atlético Madrid mu demul dikkul démb nag amul benn ndam témboo la def gonay ànd ak Diego Simeone li leen dese na ci li leen dese nag bari na ci xët yu yaato yaatu nga xam ne fi mu toll nii championnat bi rappajoo na gisoo Real Madrid yaakaar naa ni ñaari victoire la ak benn nit bu ma juumul Atlético Madrid nag moom it yaakaar naa démul dikkul Barcelone daal moo ci amagul lu toll ci ñett ñett yi maanaam ñetti match ñetti victoire bu nu bàyyee ko foofee ca yëglekaay ah, bii di as yëglekaay nga xam ne li mu indi bari na lool Carvajal mi ngeen di gis nag a ah, yi ci trophée bi moo tax ma indi ko waaye jéego su ah, mi ne mi gis nga ab équipe yaakaar naa gis nga leen ñoo gën a espagnol yi démb nu dikkunu maanaam ndam lañ doon wër waaye ndam loolee da loona mujj réer ci yu bari waaye nag championnat bi day door a commencé njëkk a fecc mënuta mujjëb géew loolu di lu ñu war a suuraale bu baax a baax ci li nga xam ni daanaka mooy championnat Espagne bi baneen bi ci des Real Madrid mu war football tey euh, ci ngoon gi moog Las Palmas Marca yëglekaay ñëw na ci andi ci waa mini ci bu tooy ca kaw ba euh, ci sama côté ndijoor bu ngeen ko gisee ci waa mini moom la def tey les tête de liste tey jii nag moom la jàpp ni yëglekaay bi comme moom moo nekk ci digg mi la terrain bi euh, gannaaw kii di Luka ki nga xam ne moo nekk kii lee di international allemand ba bàyyi na di Toni Kroos moo tax yaakaar naa ni tête de liste bi moog Fede Valverde ak Modric ñoo ko war di a nekk daal ñëpp ca Barcelone ñu koy ñaanal mu jógaat ci jàmm ginnaaw blessure boobee nga xam ni mbir ma xaw naa ëpp ay loxo ndax yaakaar naa ne fi mu toll ni docteur yaa ngi koy topp résultat cent pour cent yi nag wala boog résultat total yi génn gul ci yëglekaay bii di Mundo en Deportivo la mu ñëw ci xët mu njëkk nag loolee nekkul ci xët yi waaye mi ngi nekk ci cati yëglekaay yi mooy euh, Bernal mi nga xam ni moom it blessure am boobee na bu baax a baax coppate na ko ndànk nag blessure boobee li tax mu mitti ñu bare goo xam ne nag démb ñëwoon naa ci xibaar yi di leen na bu baax a baax ki ko def blessure bi ci match bi mu doon football ak Barcelone ndax jàpp na ni njuumte la goo xam ne dal na ko te carrière gone gi bokkul ci a ndaxañ carrière boobee bu ko defee mu yem fa yëglikaay bi nag def na ko bu baax a baax waaye ñëw na ci ci football digital bi nga xam a moom gone Barcelone fi mu toll nii yaakaar naa ni am nañ jéego yu yaatu yaatu yu nu ci siqi beneen information bu nu war a ñëw loolee ci kanam tuuti lay am jërë ngeen jëf sàkku naa ci yow mii di ma door a dab yaa xam merengue nga supporté yaa xam catalan yi yaa xam Manchester United City foo man di bokk euh, bëgg naa nga abonné ci bile seen ndax loole dana coppati sunu mbégte coppati seen mbégte bu ko defee ñu mën a ànd ci xibaar yu wér te wóor ci seen télévision bii di Aladji Malick TV jërë ngeen jëfati